maa ngi leen di noo tuddaat. man nu ma tuddaat. Ah. est-ce que fàtte moom. jàng jàng nga. ja waaw jàng na waaw. ban ban classe nga bàyyi. classe su góor yi rek. mooy ah mooy sem 2. ban année nga bàyyi jàng. ban année. yii na. est-ce que bàyyiwuma 87 xaw ma 86. bi ngay jàng école primaire. ban récitation nga njëkk a jaar. ban. ban nga njëkk a jaar. ban récitation. yaakaar naa maamee ci la de maamee. maamee fàtte nga ko. waaw am na lu ma ci xam de. waaw demal réciter ma ah. maamee. ma main va sur a cinq doigts un va sur deux un va trois la ca des naa ko. celui-ci. ah celui-ci le petit bonhomme. après. ah àggaleel. non àggaleel. rek. fàtte nga des. la ca des naa ko damaa sonn fi ne merci beaucoup. ok jaajëf. ma main va sur a cinq doigts un va un un va deux celui-ci le petit bonhomme. Et chacun fait son petit métier. On est l'index. Hein On est l'index. L'index. Des fois, nous avons l'index montre le chemin, c'est le deuxième doigt de la main. Non, non. kon dama kaa fàtte. waaw. nga def CI yow. fàtte naa ko de 2007 2007 la laa laa dugg école. 2007 ak léegi nga fàtte fi maame. waaw. ban classe ngay def. cinquième. tudd. man maa ngi tuddu Bassirou Fall. jàng nga école. waaw moi j'ai fait les ban classe nga bàyyee. maa ngi bàyyee sixième collège je pense. ban année. Euh, 2015. récitation ma mère fàtte nga ko. ma mère ma moom fàtte naa mais notre corps moom yaakaar naa sama sama sama sama leçon yëpp moom laa ci gën a jàpp. waxal ma notre corps. notre corps notre corps notre corps comprend de trois parties mhm. la tête le tronc et les quatre membre ani la tête. la tête mu ngi nii. le tronc mu ngi nii. les quatre membre Euh, les bras et les tànk quoi les kii pieds. ak la naat. Euh, ak lan kii nu mu tudd sax waaw fàtte biñ naan l'est l'ouest ak nord le sud. merci beaucoup ñu ngi lay jaajëf. waaw jaajëf. sëñ bi. ça si ma lay fay. tur bi naka la. tur bi Cheikh Ahmadou Bamba jàng nga français. waa jàng naa français de. mu yaa ngi jàng ba léegi. non instant moom arrêté ban classe nga bàyyee. maa ngi bàyyi seconde. ban année. maa ngi bàyyi 2009. primaire récitation maame fàtte woon fàtte nga ko wala récitation maame moom boo xoolee fàtte naa ko quoi am na lu si jàpp tuuti quoi. léegi commencé ñu dem. maame voici maame cinq droits un voici loolu de laa ci xam. mais mais loolu dafa yomb continuer ñu dem. non instant moom soxna si damay bañ continuer juum quoi ku la wax. non forcer rek forcer wax nii mooy continuer yow sa juum loolu laa ci xam quoi. vraiment loolu laa ci xam. au nom de Dieu billaahi wallaahi loolu laa ci xam. voici un un voici deux. loolu nag elle a cinq droits waaw loolu de laa ci xam. droit wala droit. droit de droit wala ah. droit waaw comme loxo. ok loxo elle cinq droites. elle non non elle cinq. léegi yow baaraam nu ñu koy si si français. waaw ok baaraam nu ñu koy tey baaraam mën ci loo baar ci ci bokk ci baaraam. xam nga dèjà foofu juum naa yaa ngi may. baaraam baaraam mee la tudd. baaraam non loxo loxo moo tudd mee. loxo moo tudd mee. Uh-huh. baaraam nekk ci biir loxo. léegi baaraam nu mu tudd. ah lépp lépp boo ko sàmbalee mee lay doon. <laughs> léegi commencé waat a réciter maame bi. ah maame non mun moo commencé waat réciter waat. maame voici maame elle a cinq droits. un voici un un voici deux. dèjà xam nga loolu lu lu yàgg la quoi fàttaliku mu ko sax. ban mooy l'index. index bi xaw ma ko de l'index xaw ma vraiment xaw ma ko. d'accord mooy ban. l'annulaire tamit xaw ma ko déggoo man loolu fàtte naa ko quoi. yow bi nga def CI CI. Ah. ban rang nga jëloon loo jëloon seen classe. CI ma xool bi may fàtte daaw ma génne les cinq premières CI daaw ma fa génne ba ni may génnee école élémentaire. génn mu ci séran boobu noonu. fàttali ma baaraam yi nan lañ koy waxee ci français baaraam. loxo laa mën a wax lu ñu koy waxee ci français ne jàng ba sëgoon. waaw xaw ma sa cas critique na. waaw sama cas kay ok merci. <laughs> ñu ngi lay delloo. ndax mais da école waaw fa laa jógee nii de. ban classe ngay def. seconde laay def L1. Euh, nga récitation maam yi. ah dafa mel ni waaye lu ma si jàpp bëriwul primaire ak léegi yàggagul mais fàtte ngeen récitation maame. ah loolu dafa yàgg nag de. loolu yàgg léegi réciter ma maame. maame. voici maame. elle a cinq doigts. voici un. voici deux ah man dafa mel fa laa yem de. celui-ci. ah fa laa yem de fàtte naa loolu. celui-ci ah mais fàtte naa loolu de fa safeen. moom fàtte naa ko. regarder mais du waa travail sànq dégg la nga koy wax. chacun fait son petit métier waaw. yow daal da ngaa sauté wax li nga rek. récitation maame. ah maame. maame. maame moom récitation ba nga ne fan nga fàtte. <laughs> yow xale bu ndaw a fàtte nag dama le petit si xaw ma lan la xaw laa yam daal di ko fàtte quoi ah loolu la waaw loolu la. yow fàtte nga. fàtte naa kay fàtte naa maame billaay. vas-y demal ma xool. maame voici maame à 5 3 1 fois 6 2 1 fois 6 3 le 6 ma përi billaay ma ko fàtte ma ko wallaay ma ko fàtte. jeexal xel mi rek du ñàkk nga xam. ah dama ko fàtte dama ko fàtte dama ko fàtte.